defe naa ne tey ku war a kontaan man ma war a njëkk a kontaan defe naa DG man bokkoon naa si ñi njëkk liggéey ngir Air Sénégal ak Saudia ànd di liggéey defe naa kii DG moom moo si seede bi ma nekkee consul général euh, yàlla mu ngi koy doog a mottali tey kon fierté la Euh, vraiment pour Sénégal fierté la pour man fierté la pour euh, le DG di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla jàppale euh, di woo tous les Sénégalais yi nga xam ne dañuy tukki dem Jeddah Arabie Saoudite wax leen nañu soutenir suñu air nañu dimbale suñu air nañu dimbale suñu compagnie bi nga xam ne moom mooy compagnie nationale di air Sénégal nit ki loo am da ko war a tiitaroo mais danga si war a jàpp participer ci def lépp pour mu réussir réussir kan moo ko yore gannaaw yàlla ñun ñoo ko yore kon maa ngi woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw képp ki nga xam ne yaa ngi tukki di dem Arabie Saoudite na nga jël air Sénégal na nga jàppale Air Sénégal nga xam ne sa compagnie sa compagnie la sa compagnie nationale la kon ñu ngi leen ñi ñaanal yàlla suñu borom subhaanahu wa taala yal na leen yàlla jàppale te encore di gënaat am mbégte surtout euh, pèlerinage bi nga xam ne moom dañuy def euh, du yàgg Air Sénégal dinañu accompagner kon nag loolu dafa nekk li nga xam ne vraiment ndimbal la